ki démb am na lu xew. waaw ci ci joueur boo xamante ne international la. waaw muy doomu Sénégal. waaw Idrissa Gana Gueye. Idrissa Gana Gueye. vraiment mu nekk ci équipe bi nga mhm. xamante ne mooy Paris Saint-Germain. Mhm. ñu jël benn maillot boo xamante ne jox ko. dama koy féliciter dama koy féliciter. en tant que yow. dama koy féliciter dama koy féliciter. Hmm. Idrissa Gana Gueye dama koy féliciter. Hmm. ndax jullit la. man su ma la benn affaire. jën naa ay yëre États-Unis hmm. barki sëriñ Saaliw Mbàkke billaahi wallaahi taala xaw ma ni woon lool lañ ca bind yëre góor jigéen la bii la benn waaye ah, boos maa leen nuyu boos at rasil at rama ak mëti hmm. restaurant boos ñaa fa dem di añ hmm. rasil euh, boos na ma ii liiru sa tiset bi nga sol sumil sumil sumil ma xam nga jànguma Ah. ma ne ko waaw mu ne ma sonnil sonnil eh? barki Serigne Saliou Mbacke billaahi eh? wallaahi taal noonu laa sommee tisat ñun ay jullit lan tisat lu ci bind lan ci bind ñu ne drapeau boobu la drapeau bu borom ñaari tur yi wóor na yàlla boos moo tax ma summi tisat barki Serigne Bamba boos moo tax ma summi tisat bi moo ne ma summil summil summil comprendre ma waaw ma fa laa summee rama dafa taxaw ne ma dëgg la yée summil liiru euh, mati xamoon nga ko mati mati mi nekkoon TFM mati waaw wax nga dëgg mi ngi dansir mu ne ma liiru dëgg la summil nii laa summee tisat bi barki di hmm. nuyu boo Diop tamit boo Diop. ñoom gànna euh, gay loo koy wax gànna gay loo koy wax. comme yow kii nga di ko félicité hmm. te ñun doomu Sénégal ñun ñëpp ko war a dooleel jàppale ko. Hmm. ñun ñëpp ko war dooleel ndax maa ngi dégg français yi ñoo ngi koy commencé di ay xataal ak di ko indi ay buntu xatal. ñun ñoo war a jóg doomu réew mi doomu Sénégal di ay jullit dooleel ko jàppale ko. ah oui. yow yaa ngi ci ginnaaw ah bu baax a baax a baax ndax li mu def dama ko félicité ndax ñun ay jullit lañu ay jullit lañu ñun. Hmm. ay jullit lañu. ñooñu nag buñ nekk ci réew mi nag borom ñaari tur yi nekk ci réew mi. duñ leen a yàlla ma yàlla musal ci ñoo xam seen affaire la. man jullit laa man. Hmm. waaw way man jullit laa. Hmm. jullit laa borom ñaari tur fu mu jaar sama du ma fa jaar. am naa plein droit. te boo gisoon borom ñaari tur ñeme ngaa jëflante moom. jëflante pour lan. non duma ko wala nga kii. man lan ko duma ko wala. non non non lan laa seq ak moom bëgg-bëggam la moo ko neex na jaar ne rek ma jaar ne. waaye dama fa nekk naan damay jàppante ko oh, loolu pour lan moo ko neex viam la naa ko bàyyi ak viam man taalibe la man Baay Faal la naa ko bàyyi ak viam hmm. surtout dama fa nekk di wax ak moom la lu ma koy def ah non non non sama yaay ji Adja Gass ca Angleterre. waaw ah at kii nu mu tudd euh, Madeleine Mmh. Madeleine ca Atlanta mmh. Madeleine mmh. déglu ma Madeleine ca Atlanta ak Jali Jàmme ca euh, ca Sweden Jali Jàmme ca Sweden maa ngi koy gërëm bu baax at waa Atlanta yëpp ñoom girif sugu ñoom Adja Loof Gay séeri Adja Loof Adja Loof ñoom ñëpp maa leen nuyu bu baax wa Atlanta waaw mama mama kooku ba moom laax ya ñoo ma ñoo ma dalaloon moog Ibu Ibu sama waa ji man ak moom ñoo dëkkoon ñoo bokkoon kër mama di ma togg ay laax di ma toppatoo ndax bëggoon combat bi di ma togg laax yu baax a baax a baax a baax waaw Malick Mbaye Séeri Diarra doomu nday Ablaye Sarr sama rek sama xarit ak ñoom Coy ñoom Coy Coy doomu nday Ablaye Sarr magu Arfan la sama xarit la ca Amérique Kumba sama jigéen la mooy magu Arsan ak Yaya ah Yaya Diallo sama booy la vraiment sama booy doomu ndayu Ablaye Sarr Yaya Diallo di nuyu waa ñoom Fallou waa 116 xale ak sama boy yi nga xam ne ñoo jóge Brésil ñëw foofu maa leen di gërëm bu baax di leen sant xale yu am jom nangoo liggéey jaar fi ñu jaar metti lool ñu jóge Brésil dugg Sénégal dugg Amérique vraiment am jom nangoo liggéey maa ngi leen di féliciter di leen ñaanal yàlla na leen yàlla defal jàmm si li nu bëgg ñoo ko xam yàlla na leen ko yàlla defal booy jóge Brésil yëpp dugg biir États-Unis ak waa New York yëpp yëpp yëpp ah di gërëm bu baax a a baax di leen sant ak waa consul ba ñëpp maa ngi nekk ñëpp tout maa ñoom Margo ñoom ñëpp mm. maa leen ziar bu wér maa lay jaajëfal bu baax maa lay ziar kontaan naa maa gën a kontaan dama lay giree di la yëngal yow suma rakk nga di ñaanal Balla Gaye 2 combat mi mu jëm may ko ndam lu guy la sept août la sept août incha allah dimbali ma nga ama Gris Bordeaux kan mooy Gris Bordeaux waaye jógal fii nga ama ne Balla Gaye gaynde di génne way nga ama soo waxal Balla Gaye gaynde pire gaynde pire mooy Serigne Boury Bathily Baye Mohamed Baye Serigne Saliou Magi Sakes rakku Lirou Diane kookoy Balla Gaye 2. gaynde Géejawaay sama rak yàlla na ko yàlla defal jàmm ci combat am jëm. Gris Bordeaux nee na Balla Gaye ñemewul taxaw. day wax lu ko neex day wax lu ko neex Gris Bordeaux day wax lu ko neex j'arrête Gris j'arrête Gris ba ko conseil Balla nan la doon def nii. waaw na ko constat bii yoon. xam nga bee gisul woon. bii na ko constat naan nii maa la wax lii. Balla Gaye dina taxaw xeex. Oh, waaye Balla Balla Gaye ndaanaan ku la fàttali oh boy loolu cangat la ma xalla seen làmmañ dinu catu Balla Gaye ñeenti avance ñeenti avance ñeenti ku ko amoon jël ku amoon ñeenti avance jël mbëri am nañu ne siiwa am ñeenti avance promoteur bu xool ba gi Balla Gaye ka ay qualité am neex ko tubaarikàlla muy taaral bis am na droit jox ko fukki avance Hmm. waaye yéen seen lambe ni ngeen di ratatat ñeenti ngeen quatre avance. Balla Gaye. cat eh, la eh, yéeg eh, cër macha allah. waaw mosu leen ko gis Balla Gaye mel noonu nag. Balla Gaye mooy lamb et puis dafa saf lamb. Balla Gaye dafa saf lamb. ritam Balla bi dina xaw ma lu mu laaj leen ko def. ritam Balla bi jiguloo rit sa yoon nekkul ci ritam Balla dañuy ritam Balla ba mu neex ba mu ne saay. ritam Balla ba ne saay la ñuy def. Hmm. waaw way lu bismillah dégg leen ko def sooba yàlla incha allah rabi. voilà di ñaanal saa kees tamit combat bi mu jëm hmm. yàlla may ko ndam lu sedd guy hmm. sama rakk la sama xarit c'est mon frère géeja way ca kaw ca kanam képp ku fi am combat yàlla la yàlla may ndam si caatu daaw da fall combat bi mu jëm yàlla ko yalla may ndam at booy sama booy bi ah réparé Youssou Ndour mooy war a bëree samedi moom tamit tudd nga ñoom ñëpp sama rakk leen ku ci am ndam maa am ndam fu na tudd ku lay jël interview di nga dem commercial fay oh, maa tay soo leen demee ko ngeen bañ man neexalu ma leen yéen a may war man waru ma leen de. man waru ma yéen a may war de. Sénégalais yi ñoo lay war waaw Sénégalais ñu may war ak yéen. yéen yor seen i micro da ngeen may war ndax yaa ngi nii foo nekk wax ni war nga ma. waaw boobu la yaa may war. loolu foo ma fii nga ma lokkotee. dëgg la bu bees. la ci sama place rakk. dëgg la ah. waaw yombul. góor yombul ay maam eh. du moom. waaye di gërëm ñëpp di gërëm Cheikh Thiam nag téer bu mag ba ca Amérique. vraiment di gërëm waa Amérique gépp gépp ku ma tudd sa tur maa ngi jëf waa Fawzeyni